إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi seede na yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu yàlla rek a yeyoo ñu koy yaakaar yàlla rek a yeyoo ñuy sukkandiku ci moom suñu borom yàlla boobu moo yónni woon ci ñun ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam ngiree moom rek mu yeyoo jàngale naka la ñuy jaamoo yàlla mu wàcc ci moom ab téeréem xamal ñu naka la ñuy war a dundi waaye xamal ñu surtout la nga xam ne moo ñuy xaar gannaaw ba ñu fi jógee ay yow mbokk julit suñu borom yàlla dogal na nee na bépp bakkan dana mas a mos dee loolu yéeféer ak jullit ñoo ci yem ñépp gëm nañ ko amul benn effort boo mën a def ba mucc ci dee abadan la ca topp nag suñu borom mu ni seeni pay ñi ngi leen koy fay yowmal qiyaama lépp loo xam ne def nga ko ci kaw suuf lum néew néew ci lu baax lum néew néew ci lu ban fa man yaamal misqaala zarratin xayran yarah wa man yaamal misqaala zarratin charran yarah loo def dañ ko gis suñu borom nee na bu ëllëgee képp koo xam ne mucc na ci sawara ñu jël ko tabbal aljanna kii mooy aji texe ji yal na yàlla boole ñu ca ñooñi aji texe kooku rek la mooy ki nga xam ne dundam bi góor góorlu na ba ëllëg mu mucc ci sawara tabbi aljanna amma dunduk àdduna borom bi ko xam ci indi ñu fi mu ne wamal xayaatu dunya illa mataaul gurur dund àdduna bànneex bu ndaw la buy war doomu aadama tey waraate rek bi ngay ñëw doo indi dara bi ngay dem doo yóbbu dara loolu tax ba yow mi borom xel suñu yeneen te sallallahu alayhi wa sallam day daf ñu doon wax bari leen lool di fàttali ko la nga xam ni mooy dagg bànneex yi li nga xam ne bu ñëwee teqale la ak sa njaboot teqale la ak xarit ya teqale la ak kër yu taaru ya wàcce la oto ba teqale la compte bancaire ya yóbbu la foo xam ne xamoo ko ca mooy bàmmeel ngal la way bari leen di fàttali ko loolu daana wax ne amul kenn koo xam ne alalam ja bari na muy fàttali ko dee lu dul loolu wëlbati ko néew ci moom ba loolu du ko yóbbaale amul koo xam ne la mu am ci àdduna daa néew waaye bu fàttali ko dee loolee day doon loo xam ni dana ko doy la mu sant ca yàlla loolu ngeen dégg waykat yi di wax naan bari la bari la bàyyi ko gannaaw néew la néew la bàyyi ko gannaaw ay yéen jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax sahaaba yi dem leen ngeen ziyaara ju bàmmeel yi ziyaara bàmmeel dana leen fàttali seen mujj ca mooy ñun ñépp dañoo mujj di ci dee ziyaara bàmmeel mbokk mi ngi noonu ki nga xam ne nii moom mooy Ali ibn Abi Talib ànd na ak lenn ci ay sahaaba ñu ñëw ci bàmmeel yi di ziyaar mu ne hey yéen waa bàmmeel yi waaw lan mooy seen mbir ñun dey li ñu xam mooy kër yi ngeen bàyyi woon ñeneen dëkke nañ ko seen soxna yee sëy nañu borom kër yee takk nañ yeneen soxna alal yee séddoo nañu ko waaye yéen nag lan mooy seen mbir gannaaw ba moo gëstu ci ñi ñu àndaloon na leen maa ngi leen di waatal ci yàlla ne ba doon mën nañoo tontu seen tontu mooy fa inna xayra zaadi taqwa seen tontu mooy la gën lu nit di dajale ci kaw suuf mooy ragal yàlla mbokk xabru mi ngi noonu suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ci mbir yoo xam ne ku mel ne Ousmane ibnul Affan heure bu mosaan dem armelia bu tiimee xabru bi rek fokk mu jooy ba mujj kenn ci ñëm dëkkaloon na ko waaw muy hëni na ko waaw yow Ousmane dañ li dégg ngay jàngal quran di tudd sawara doo jooy di tudd àjjana doo jooy lu tax boo gisee xabru di jooy mu ne damaa toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne day li ma yàlla won ci liy xew ci àdduna yépp amu ci lenn lu gën a ñàng ak xabru mooy la nga xamee ni nii boo ca tàbbee fekk fa xéewal xéewal yi ca gannaaw moo ko gën a sax moo ko gën a yàgg waaye cay boo fa tàbbee fekk fa mbugal mbugal yi ca gannaaw moo ko gën a ñàng ca moo ko gën a sax e yow doomu aadama xoolal lan muy sa kër tey ku nekk ci ñun mi ngi waajal nu muy def ba am kër ca na am loolu lu baax la lool waaye nag xamal ni dëgg-dëgg lan mooy sa kër gannaaw ba koo gis mu am kër gu taaru ndax dana la yéem ndax xam nga këram dëgg-dëgg mbokk déedéet fii àdduna dañ fee am ay jaar-jaar waaye suñu kër ci àdduna ma nga fee ca bàmmeel ya kërug allaaxira nag mooy ajjana wala sawara waaye kërug àdduna moom xamal ne mbokk ma nga fee ca armeel ya toujours dañuy joxe dund référence dund référence ci jullit ñi mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dundoon na ci àdduna amoon kër na am waaye këram googee ma ngi fa dund juróom benn fukki at ak ñett la dundoon ci kërug àddunaam amma kërug barzaqam ren ji la ñuy gis ne mi ngi ci junni at ak ñeenti téeméer ak fanweeri at ak ñaar ci yonent bi alayhi salaam def ko ci bàmmeel waxuma nag ñëkk a jiitu ci ay yonent di Moussa ak Ibrahima ak Nuux ak ñeneen waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek kër gi mu jaar ci àdduna 63 ans këru barzaq 1432 ans def na ko foofee loolee mbokk di référence boo xam ne yow it yaa ngi fii sa kër lu mu taaru taaru lu mu ràpp-ràpp xamal ne da nga fay jaar rek waaye kër ga dëgg ma ngi lay xaar fële ca bàmmeel ya mbokk boo duggee bàmmeel xamal ni muy kër goo xamee ne nii muy kër gu wéetaay ga kër goo xamee ne nii suuf ngay laytaayoo suuf ñëw tege sa kaw la la fay wéttali si mooy ay sax ñu ñëw lekk sa yaram loolee mbokk da ngay gis ne lenn dong moo ca mën a texeele fekk ne ba nga fay dugg yaa ngi ànd ak ngërëmal yàlla ndax loolu lépp teewul yaa ngi xaar benn étape bu gën a ñàng lu mu mën a doon ca mooy kër bi la yàlla di yee ci kër googee nag ñu xool ba xam ñaari kër ya ne àllaaxira ana ca ban nga fa jëm loolee moo tax ba mbokk ku nekk ci ñun war a bàyyi xel waa man bis bi nga xamee ne nii samay mbokk dañu ànd ak man yóbbu ma ca armée la gas ba mu xóot ñu suul ma fa samay doom wan ma gannaaw samay frère wan ma gannaaw samay xarit yi ma daan àndal di ko fagree guddeeg bëccëg wan ma gannaaw man dong ma wéet ak sam pax mbokk loolu ku ne war na koo xalaat bis bi ngay jëkk a fanaan sa bàmmeel ku nekk ci ñun war na koo xalaat temps ba ngay def foofee ku nekk ci ñun war na koo xalaat looloo tax ba mbokk julit kii nga xam ne Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne bokkoon na ci buuru julit ñi daana def heure bu masaan dugg ca lañ daan tuddee pare l'islam daan fàttali ko waxi borom ba nga xam ni da daan wax naan mu ndox nit ñi su ma leen xéewal loolu ay ay at dund nga junni at ci kaw suuf waaye gannaaw bis bu dee ñëwee bànneex ba nga doon bànneexu ci junni at yooyu yépp bis boo duggee bàmmeel fàtte ko loolee daana ko wax radiyallahu anhu ngiree rek bañ àdduna bañ koo këf donte ne moom nekkoon na buur ci buuru jurit ñi mbokk guddi googee lu bari ci sun mag ñu jëkk ña daan nañ ci def seen expérience bopp daan gas ay bàmmeel ci seen suufu lal léeg-léeg ñu buñ demee ba àdduna bëgg leen a wor ñu ñëw dugg ci biir bàmmeel bi daa di ne ay yàlla may ma ma dellu àdduna may ma ma dellu àdduna gannaaw ba delluwaat at daa di daa di jóg daa di ne ah waaw yaa ngi nii de yàlla mayet ne la occasion nga dellu si waat ndax yàlla moo ñu nettali loolu ci alxuraan suñu borom nee na amul kenn koo xamee ne dafay dee te bi muy dee jaaruloon fi neex yàlla lu dul la muy wax yàlla rabbi rji'uun la'alli a'malu saalihan fi ma tarakt ay yàlla may ma ma dékkiwaat ngiree def lu baax ca la nga xam ne moom laa bàyyi gannaaw heure bu la yàlla wërsëgalee nga dem bàmmeel ya wala romb bàmmeel ya xoolal ña nga xam ne ñoo fa tëdd di ay junni junni wallahi seen yéene bi gën a rëy seen ñaan gi gën a rëy buñ leen waxoon ñu ñaan ko mooy nañu dellu siwaat àdduna wax fi benn laa ilaha illallah wala benn subhanallah wala benn astaghfirullah moo leen gënaloon ñu mayaat leen adduna ak li ci biiram ñu dundaat fi mille ans benn tasbih wala benn zikrullah moo leen gënal loole laalli amalu salihan ngir rek ma def lu baax fii ma taraktu loolu moo tax ba nga la way mbokk julit xamal ni xéewalu bàmmeel day sax na ci alquran ak sunna suñu borom mu ne wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima aatahum llahu min fadli bul foog ne ñi nga xam ne dañoo dee dee fi sabilillah dee yàlla ngërëmal yàlla suñu borom nee na am na dund gu ñuy dund ca barzaq suñu borom di leen fa fekk ay xéewalam ñu nekk ci ay jardin ci jardin aljanna mbokk mi ngi noonu di fa xaar ba baa bis penc di te di dëkk waaye ñu jaaruloon fi neex yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy nettali wa xaaqa bi ali firawna suu al azab annaaru yuqraduuna alayha guduwan wa ashiya wa yowma taqumu saatu adxilu ala firawna ashadda al azab borom baa ngi wax benn échantillon ci ñu jaarul woon fa ko neex mi firaw naa ki notable am nee na bés bu nekk daan leen gaaral ci sawara chaudière ya takk lakk leen ngoon ñu gaaral leen ko suba ngoon ba baa yowmal qiyaama nag ñu doog leen dugal ci mbugal yoo xam ne mbugal yu tar la loolu tax ba képp ci ñun bokk na lu muy laaj boppam naka lay def ba bu ma dundee bàmmeel xéewlu fa bàmmeel boobee nga xam ne mën na ma def fa junni at naka laay def ba bu ma duggee bàmmeel mucc ci mbugal ya mbugal yooyu nga xam ne mënoon na taxoog yow junni at même bu doon te ne gannaaw ba da ngay dem aljanna mbokk loolee waajal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi yàlla yindi woon rahmatan lil alamin nee na heure boo xamee ne nii dugg nga bàmmeel ba say mbokk woon la gannaaw yàlla dana la yónnee ay malaaka ñu daal di ñëw toogal la ne la ay yow diw kan moo nekkoon sa boroom su ko defee nga ne ah rabbi yallah yàlla rek laa doon jaamu bokkaale wu ma ko ak dara loolee yow mi bëgg xéewlu ci bàmmeel bëgg mucc ci mbugalam ngal la waaye moytul ma li ngay dégg ci rajo yeeg télévision yi sëñ diw di kenn sëñ diw amul moroom yàlla na ko sëñ diw teeru ca barzaxam yàlla na ko yàlla dajaleeg nangam mbokk loolu suñuy wax la yu ñuy sos bokkul ak la ñu yàlla wax ci alxuraan ak sunna boo duggee bàmmeel doo gis sëñ diw doo gis sëñ cheikh ay malaaka nga fay fekk suñu borom yàlla moo leen yónni daan la laaj kon moo nekkoon sa borom bu doon bokk nga ci ñi ko wéetal bokkaale wuñ ko ak dara man de yàlla la doon jaamu bokkaale wu ma ko ak dara ñu ne la waaw ci ban diine nga nekkoon nga ne maa ngi nekkoon ci diine lislaam jébbalul yàlla jalla waala waaw loo doon wax ci kii yàlla yónni woon ci yéen nga ne ah kooku de mooy suñu yónent ci yàlla muhammad moom laa gëmoon moom laa toppoon suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di leen di woo ca kaw arasham ba waa malaaka yi ne leen sama jaam bi wax na dëgg yaatalal leen ko bàmmeelam bi defal ko ko jardin ci jardin yi àjjana yi yal na yàlla booloo ñu ca looloo tax ba mbokk la nga miin ci armeel yi suñu demee imam ba taxaw naan juróom-ñaari ina anzalnaaw juróom-ñaari li ilaafi kaza wa kaza yonent bi ak i sahabam xamuñu woon loolu lan lañ xamoon mooy la yonent bi alayhi salaam digle heure bu mosaan sul néew ba pare na istaxfiru li axiikum wasalu lahu tasba tasbit fa innahu l aana yusal ñaanal leen seen mbokk bi yàlla jéggal ko ñaanal leen yàlla saxal ko ci tont yi ñu koy ci laaj yi ñu koy laaj ndax léegi malaaka yi ñëw laaj ko te résultat ba muy dunde ci bàmmeelam mi ngi dépendre ci question yooyu ñu koy laaj nan la ko tontoo bu tont yu juboo rek jeex na bu tont yi jubee jeex na mi ngi nekk ci xéewal ba baa yàlla di dekkal jaam yi waaye bu konte ba dëngee mi ngi nekk ci musiba ba baa yàlla di dekkal jaam yi loolu moo tax ba mbokk julit ku nekk ci ñun nay góorgóorlu di bàyyi xel fu mu mën a toll la nga xamee ne nii moom lay waajal heure bu dajee ak bàmmeel boobee nga xam ne la ca nekk ci ay mbugal yéeme na lool comme naka yonent bi alayhi salatu wasalaam nettile ba daana wax ne lawla an tadaafanu la daawtu llaha an yusmiakum azab al qabr wallahi bu ma bañul woon ngeen am mbokk bu dee kenn du ko ñemee suul doon naa ñaan yàlla ngeen dégg mbugal yiy jóge ci bàmmeel yi ndax kon nit dana am mbokk baayam dee sax mu ne duma ko suul loolee mbokk lu jara tiit la lu jara ragal la nañu koy tiite nag nañ koy ragale mooy wéeral suñuy pas-pas ci suñu boroom sa boroom yàlla moo la bind yow rek yow fa caam yow Moodu Njaay moom rek moo la bind bam lay indi ci àdduna benn sëriñ jàppo ca moom rek moo lay indi ci àdduna gis nga bis buy dogal sag dee kenn nëmunu ci dara sëriñ ba dañ ko koy tàggee wala cheikh ba dañ ko koy tàggee heure booy dugg sa bàmmeel yow dong yaay dugg doom du dugg jabar du dugg sëriñ du dugg yow dong yaay dugg ka nga fay fekk mooy sa borom heure boo demee ba tasaaroo ci kaw suuf yàllaa lay dekkalaat ngal la waay yàlla moom bu ko bokkaale dara ngërëmam fa mu nekk mi ngi nekk ci topp ndigali yonentam sallallahu alayhi wa sallam def ko muy sab sëriñ def ko muy sab cheikh def ko muy sa royukaay gën koo bëgg ci lépp lu yàlla bëgg toppal ay ndigalam bàyyi ay tereem lii dong mooy la nga xam ne moo la mën a musal lépp loo dégg na xaraamal na ko na doon loolee jëw la njaaloo la sàcc la wor la bàyyi julli la lu mu mën a doon moytu ko sa kemtaleel kattan lépp loo xam ne yëg nga ne lu baax lu ñu digle la loo mën nga def ko ca toujours ngay xalaat sa bopp mën na am day ma dee tey mën na am ma dee suba mbokk jullit wallahi xutba bii bi ma koy waajal xawma woon ni bala maa ñëw ci jàkka ji daañ ma tàgge benn mbokk boo xam ni poté bii ma jàkkaar lool ñi miin tafsir bi yépp fii la daan toog ay ati ati at muy Babacar Ndiaye bi dëkk HLM Grand Médine léegi lañ ma tàggee ne faatu na ña ngi koy waajal fee ci juma galaajo bu ñu paree yóbbul ko boroomam yal na yàlla jéggal ko yërëm ko defal ko àjjana mu nekk wàccuwaayam waaye loolu mbokk mi ngi noonu tey moom la ëllëg keneen la ëllëg man la ëllëg keneen la adduna noonu rek la su ko defee nga la way ñu góorgóorlu suñu kemtaleel kattan xam ne fii dañu fee jaar gannaaw ba daan jaari ci bàmmeel waaye jaaru bàmmeel wallahi moo gën a yàgg la nga xam ne mooy jaar bi ñu jaaree fii lay tax ñu texe ca bàmmeel di tax ñu texe ëllëg yowmal qiyaama ñoo ngi koy waajale fii naka al imaanu saxiix wal amalu saalix ngëm gu wér gu àndul ak benn bokkaale ak jébbalul yàlla gu wér nangul ko bañ koo bokkaale dara roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki def lii day texe na àdduna texe na barzaq texe na alaxira yal na yàlla yombal ko ci ñun ak bépp julit allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar allahuma inna nauzu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabr wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati masihi dajjal allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin allahuma inna nasuluka alhuda waltuqa walafafa walghina allahuma igfir lana warhamna وثبتنا في قبورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا عند المسألة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين